juróom ñeent fukk ak juróom safara asalaamaaleykum mbokk yi ñuy déglu nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub mbind mu sell mi nee na ñi ragal ñi gëmul ñi def lu ñaaw ak fenkat yépp seen añ moo di déegu safara ak tamarax bi des na leen sànni ci biti ci lëndëm gi ci safara sudul fey si ñu sàkkal seytaane ak ay malaakaam foofa des na fa jooy te yeyu noonu ñii dinañu soobu ci mbugal gudul jeex waaye ñi jub dinañu tàbbi ci dund gudul jeex lii mooy li kàddug yàlla wax ci mbirum bërëbu metit bi ñuy woowe safara safara neexula waxtaane bëggunu ci xalaat sax teewul nag ci mbirum safara lanu fas yéene jàng ndaxte ci mbind mu sel mi yàlla dafa ci wax lu bare sax ngir àrtu nit ñi ñu bañ fa dem tey kon ak njàng mi ñëw danu fas yéene gëstu ci mbind mi te jàng li mu wax ci safara ak àjjana ak ni munu mën wóore ne dinanu dem àjjana te dunu tàbbi safara xam nanu ne lu ëpp ci nit ñi dañuy xalaat ne kenn xamul luy xew alaxira ak fan lañuy dem ëllëg waaye dañuy xalaate noonu ndaxte xamuñu yoonu mucc wi yàlla tëral mbaa digi yàlla yu rafet yi maye kóolute gu dëgër ndax kàddug yàlla wax na ne mën na nanu xam bu wóor ne dinanu dem àjjana waaw waaw kàddug yàlla nee na maa ngi leen di bind jëf yi yéen ñi gëm turu doomu yàlla ji ngir ngeen xam ne am ngeen dund gu dul jeex yow miy déglu tey ndax am nga dund gu dul jeex googu kàddug yàlla di yëgle bés boo deewee ndax xam nga fan la sa ruu ndax wóor na la ne dinga texe te doo tàbbi safara su fekkee amuloo kóolute googu sunum njàngoom tay bi war na laa soxal ni ñu ko gise woon ci linjiil bi musalkat bi yéesu nekkee ci kaw suuf dafa daan faral di jàngal nit ñi ci mbirum safara ak àjjana waaye li yéesu jàngale ci lu jëm ci safara moo ëppoon li mu jàngale ci mbirum àjjana ndaxte dafa xamoon mbugal gu tar gi nekk safara te bëggul kenn tàbbi ci léegi nag nanu dellusi ci linjiil ba déglu ni yeesu jàngale mbooloo ma ci mbirum safara déglu leen nettali bu wér bii ci mbirum ñaari nit ñu faatu woon ñu ngi ci linjulu luk saar fukk ak juróom benn yeesu wax ak mbooloo ma ne dafa amoon boroom alal juy sol yére yu rafet te jafe tey dund bés bu set dund gu neex fekk miskin mu ñuy wax lasaar daan tëdd ca buntu këram dell ak ay góom te bu sañoon di lekk ci des desiti ñam wi rot ci lekkukaayu borom alal ci xaji sax daan nañu ñëw di mar ay góomam noonu miskin ma de malaaka yi yóbbu ko ca wetu ibrahima boroom aja alal ja itam dee ñu suul ko bi ñu koy mbugal ca safara mu téen seen fu sore ibrahima ak lasar ci wetam nanu taxaw fii tuuti ndax jàpp ngeen li xewoon ak boroom alal ja ak miskin ma di lazar fan la lazar demoon bi mu deewee ca saasa ruwama nga woon ca àjjana di jatayu yàlla fa yonent yàlla ibrahima nekkoon bu yàgg boroom alal ja nag fan la demoon ca saasa moom itam ruwam ma woon ca safara ñu di ko te foofu la nekk ba tey lu tax nag miskin ma di lazar dem ajana te boroom alal ja dem safara ci bu jëkk war ngeen xam ne nekk baadoola taxul nga taxe te am alal ju bari itam taxul nga sànku dem safara lazar baadoola ba dem na ajana ndaxte dafa faale woon yoonu mucc wi yàlla yëgle ci mbind yonent yi ci lu jëm ci boroom alal ja moom dafa sàggane kàddug yàlla boroom alal jooju dafa meloon ni nit ñu bare ci sunu jamonoy tey jii ñoom ñi nga xam ne dañuy mbubboo diine te xam ne yàlla kenn la te mbind yonent yi am na waaye ñu ngi ci yoonu safara ndaxte jaaruñu ci yoonu mucc wi yonent yàlla yépp seede ci mbind mi seen bànneexu bopp ak alal la leen gënal ñuy déglu kàddu dëgg gi jóge ci yàlla te naka noonu ci seeni bàkkaar lañuy sànku mel ni boroom alal ja nanu wéy léegi ci nettali bi ba déglu ni yàlla bàyyee boroom alal ja nekk safara mu wax ci diir bu gàtt ak yonent yàlla ibrahima mi nekk àjjana yàlla dafa bëgg nu sàkku xam-xam ci wax yi bàyyi ko ci nit kooku nekk safara boroom bi yéesu wéy ci nettali bi ne bi ñuy mbugal boroom alal ja ca safara mu téen seen fu sore ibrahima ak lasar ci wetam noonu mu yuuxu maam ibrahima yërëm ma yabalal lasaar mu sëpp catul baaraamam ci ndox seralal ma sama làmmiñ ndaxte maa ngi sonn lool ci safara sii ibrahima ne ko sama doom fàttalikul ne jot nga sa bànneex ci àddina fekk lasaar dëkk ci tiis looloo tax xolom sedd fii yow nag ngay sonn rax ci dolli it am na kàmb gu xóot sunu diggante ak yéen ba tax ñi bëgg a jóge fii jëm ci yéen wala ñi bëgg jóge foofu jëm si ci nun duñu ko mën noonu boroom alal ja ne kon nag maam maa ngi lay ñaan nga yabal lasaar ca sama kër baay ndaxte am naa fa juróomi rakk na leen artu ngir ñu bañ a ñëw ñoom itam ci bërëbu metit wii ibrahima ne ko say doomu baay ñu ngeeg yoonu muusa ak tere yonent yi nañu leen déggal boroom alal ja ne ko déedéet maam ibrahima waaye su kenn dekkee dem ca ñoom dinañu tuub seeni bàkkaar waaye ibrahima tontu ko ne suñu déggalul muusa ak yonent yi kon ku dekki sax du tax ñu gëm fii la nettali boroom alal ja ak lasaar yem ci lu wóor bërëb bi ñuy woowe safara lu metti la fu benn yërmande amul la gis nanu ni boroom alal ji sonne te kenn mënu ko wallu ba may ko benn toq ndox sax te li gën a metti mooy boroom alal joojoo nga fa ba tey mu nga ca safara di xaar bésu pénc ba nga xam ne ci lañuy sànni ruwoom ak yaramam yépp ca bërëb ba ñuy woowe déggu safara ak tamarax bi te foofa nag falay nekk ba faw ak ñépp ñi bañoon a déggal xibaaru yonent yi di xibaar bu baaxu yéesu kirist moom la mbind mi wax bi mu naan képp ku ñu bindul sa tur ci téereb dund bi des na la sànni ci déegu safara ak tamarax bi te saxaar si jóge ci seen mbugal dina gilli ba faaw duñu noppalu guddeeg bëccëg xalaat leen ci képp ku sàggane yoonu mucc bi yàlla tëral ba tàbbi safara du dee mukk du génn mukk te safara du fay mukk mukk ba faw xam nanu ne am na ñuy xalaat ne gannaaw ba bàkkaarkat yi sonne ab diir ci safara dinañu génn tàbbi ajana waaye xalaat boobu dëppowul ak kàddug yàlla gi wax ne dogal nañu ne benn yoon rekk la nit ñiy dee te gannaaw ga la àtte bay ñëw ku dee tàbbi safara falay sax ba faaw te ku tàbbi àjjana itam dina fa nekk ba faw te naka noonu itam amul fenn ci mbind yonent yi fu ñuy ñaanal néew yi ñaanal ay néew ci aada nit la soqi ko waaye soqi ci yàlla ñaanal ñi de mënula wàññi coonob ña ca safara mbaa musal leen ci bésu penc ba te ci lu jëm ci ñi nekk ci ajana li wér peng mooy ñoom soxlawuñu suñu ñaan ndaxte ñu ngi ci jataayu yàlla ak mbég mu mat sëkk mbokki déglukat yi bu leen kenn nax ci ay waxi neen am na ñuy wax it naan ah yàlla ku baax la du sàkk ay jaamam ba noppi di leen lakk ñun ñépp dinanu yërëm dugal nu àjjana waaye ñooñu li ñuy wax teguñu ko fenn fu wér dañuy wax loolu rekk ngir dalal seen xel ci li ñu tànn sàggane yoonu mucc bi yàlla tëral suñu wàññeekuwul ci yàlla nangu yoonu njub leen ubbil benn bés dinañu xam ne ci dëgg safara am na wante bu boobaa dina fekk réccu wees ndax dégg ngeen li boroom alal ji wax Ibrahima dafa ko ñaanoon mu yebal Lazar ca këru baayam ngir mu artu juróomi rakkam ya deewagul woon ngir ñu bañ a ñëw ñoom itam ci bërëbu metit wii nan la ko Ibrahima tontoo mu ne ko say doomu baay ñu ngeeg yoonu Muusa ak téere yonent nañu leen déggal wante boroom alal ja ne ko déedéet maam Ibrahima waaye su kenn dekkee dem ca ñoom dinañu tuub seeni bàkkaar Ibrahima tontu ko ne suñu déggalul Musa ak yonent yi kon ku dekki sax du tax ñu gëm ko yow mi déglu tey ndax gëm nga xebaar bu baaxu yonent yàlla yi la mën a musal ci safara ci xabaar boobu lanu doon gëstu bu yàgg fii ci émission yoonu njub ci tënk gisoon nanu ne xebaar bu baaxu yonent yi mooy xebaaru ramukat bu sell bi yàlla wàcce ngir mu dee ca bant ba ngir fay say bàkkaar te mu dekki ca ñetteelu fan ba ngir képp ku ko gëm am dund gu dul jeex te doo tàbbi safara mukk loolu mooy xibaar bu baax bi la yàlla mën a musale ci àtteb yàlla bu jub ni nu ko gise woon ci njàng yu jëkk ya nit taxul woon yàlla sàkk safara waaye seytaane ak malaakam yu bon yi la ko sàkkaloon wante sunu bàkkaaru maam aadama tax nun ñépp nu juddoo fu sore yàlla ci biti toolu ajana ci kaw suuf ci biir nguuruk seytaane ci kaw yoonu safara ci lu wér jukkoy bàkkaar bi nekk ci nun dinanu sànk ba faw su fekkee ne yàlla saafara lu nu ko woon ndaxte peyug bàkkaar mooy dee ak safara su dul fey mukk ci sunu doole bopp amunu menn pexe ngir rëcc ci safara waaye nu ngiy sant yàlla nag ci li mu rabat pexe mu munu mëna a baale sunuy bàkkaar lan mooy pexe moomu mooy deewuk almasi bu sell bi ca bant ba yàlla yal na yeesu kirist sunu mbugalu bàkkaar benn yoon ba faaw lu xelu nit mënta jàpp la waaye moom la mbind mu sell mi wax bi mu naan yeesu kirist ci boppam deena benn yoon ba faw ngir dindi bàkkaar yi moom mi jub ngir ñi jubadi ngir yóbbu leen fa yàlla gisoon nanu ni nit ñi fitnaale woon yeesu dóor ko ay yar yu tar teg ko kaalag dëkk ci boppam ñaawal ko pes ko tëfli ci kawam daaj ko ci bant yàlla bàyyi na nit ñi ñu sonale noonu soppeem ngir wone mbugal gi sunuy bàkkaar laaj lépp li nit ñi defoon yéesu nun ci sunu bopp noo ko yelloo woon ndax sunuy bàkkaar wante yàlla ci kaw mbëggeelam gu rëy gi mu am ci nun yenoon na almasi bu sell bi di doomam ji mu bëgg sunu mbugalu bàkkaar jaarale ko ci loxoy nit ñu soxar ñi wante war ngeen xam ne coono yéesu ca bant ba yemul woon rekk ci li ko nit ñi defoon mbind yonent yi won nañu ne bi yéesu di sonn ca kaw bant ba yàlla ci boppam moo ko yan tiis wu xel mënta jàpp yàlla sëf na ramukat bi yeesu sunu peyug bàkkaar di sunu safara benn yoon ba faw ngir mën nu jot ci safara te ba tey dëkk ci njubteem nag moom yàlla ni nu ko gise woon peyug bàkkaar mooy dee te gannaaw loolu tàbbi ci lëndëmu safara fa yàlla di dëkkal ba faaw képp ku bañ a gëm xibaar bu baax bi wante yàlla mi bëggul kenn sànku ngir musal nu ci safara dëddu na doomam ju sell ca kaw bant ba yan ko sunu safara ni nu ko jànge woon bi yéesu deewee ca kaw bant ba réew mépp dafa lëndëmoon këruus mel ni safara la ko tàmbalee ci digg bëccëg ba ci tisbaar te noonu déggoon nanu ni yéesu wootee woon ak kàddugu dëgër naan sama yàlla sama yàlla lu tax nga dëddu ma lu taxoon yàlla dëddu almasi bi di soppeem ca bant ba man ak yow ñoo taxoon sunuy bàkkaar a taxoon diirub waxtu yu lëndëm yooyu yàlla yenoon na almasi bi sunu mbugalu bàkkaar sunu safara dëgg gu xóot la te sunuy xel ñu jàpp lépp li mu ëmb waaye li wér peng mooy soo ko gëmee ci sa biir xol dinga mucc te doo tàbbi safara mukk ndaxte nangu nga saraxu ramukat bu sell bi yàlla joxe ci sa wàll mel ni xarum tabaski mi jotoon doomu ibrahima ci de Yesu Kirist dee ngir jot la ci deegu amul àpp ci bërëb bu ñuy wax safara ndegam yàlla yenn na Yesu sa safara benn laaj rekk lees lay laaj ndax nangu nga saraxu almasi bi ndax gëm nga ni Yesu Kirist mu jub mi fayal na la sa boru bàkkaar walla yow yaa di dem sa safar fayal sa bopp sa boru bàkkaar diirub alaxira yaay tànn nag lan ngay tànn yow àjjana walla safara jërëjëf ci déglu bi nu ngi leen di jox dox daje ci njàng mi ñëw ngir ndoog yéen ci lu wuute lool ak ci li nu jàng tey ndaxte bu soobee yàlla dina nu gëstu ci mbirum béréb bu neex bi ñuy woowe àjjana bu ngeen amee lu ngeen di laaj ci li nu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 saint yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li mbind mu sell mi wax bi mu naan kon nun ñi dégg mucc gu mag gi bu nu ko sàgganee nan lañuy mën a rëcc mbugalu yàlla